dégg nga wa aw aw bokk na ci am dana fa ci seen gannaaw aw allati aw gi nga xam ne bi maana illa an mu ngi xamee maanaam illa anisati mooy aw gii firi ndare aw ila an walla ila ani dayal mooy aw gii firi benangam aw buy firi ndare nangam xamee maanaam illa mm. wala muy firi banangam xamee mm. maanaam ila mm. mu daare mu maanda dañ ko na an bu ñaa sab ci gannaaw su ko defee aw nag mu ànd ak nga bëgg a ndax ndare lay firim de wala banangam lay firi da ngay fettantal maanaam fin ji maanda su dee lu buñ koy def dañ koy def benn mu waagu waaye nangu wut kon aw googu da nga koy jox maanaam illa ndare nangam su dee lu ne ni ñu ko mën a defee benn yoon noonu la nangoo ñu ba bi ba ma aw googu da nga koy jox maanaam illa nangam loolu misaal nawu xawlika ni roog wax sa ni ki yow mu na giñ naa ne danaa rey alkaafiri yéefar man giñ naa ne danaa rey aw yusliman day mu tuub gis islam bu julli dee dugg dajee dugg a dugg benn jamono rek mu àgg mm-hmm. waaye tàmbali mm-hmm. ba ca kanam nga tegaat mm-hmm. ba ca kanam nga tegaat duñ ko de nangu bu yaam day am rek damaa tan waaye kon yuslima mi ànd ak aw maanaam mi nanguwu càmpal suñ demee bay ko def dañ koo defandoor mu àgg kon aw boobule dafa am maanaam illaa moo tax ba yuslima ñu ngi ko nasab ak an guñ na bu ci gannaaw aw dafa mel laa xasulan illaa ay yuslima doon wax soo koy arab nga ne laam gi tàmbalee nañ ko jawaabi ngiñ luñ fi asafee giñ bëgg a dëhëral dara moo tax ko def li nga bëgg a bay giñ nag loolu la ñoo tuddee jawaabi ngiñ aqatulul kaafira mooy wax bi nga bëgg koo dëhëral ne wallaahi ne aqatulul kaafira aqatulul kaafira kon mooy jawaabul xasabi wallaahi mooy ngiñ li nga laam nag mu tàmbali muy wallaahi la aqatulul kaafira su ko defee nga dindi wallaahi ndax mën nañ koo xamee ci laam gi moo tax gi day tàmbali jawaabi ngiñ waaye ngiñ li dañ ko waaso xanaa xam nga loolu aqatula fi'lun ci fataa mu nekkee barabu rafaa ngir jokkoo gim jokkoo noonu tawkiid saqiila bi mm-hmm. aqtulu mooy baat bi mm-hmm. waaye bëggu koo feddali mm-hmm. moo tax nga jokk ci ak nuunara nuunara googu nga def ci baat bi léegi bëgg feddali moo la ñoo tuddee noonu mën naa ñëw de luñ maas néeg mooy ak noonu xafiifa mën na ñëw de luñ sàdda defal ko fata mooy noonu sadiida wala noonu saqiila nga dama jokk noonu tawkiid goo diis subaa nag feneel boobu ca ni danga koy fata ak utula dañ ko waroon rafaa waaye ànd gi ma ànd ak nuun loolu mu war a fata loolu moo tax rafaa gi du feeñ ak utula fi'lun mudaari' la ñu binaa ko ci fata mu nekkee barabu rafaa ngir jokkoo gim jokkoog nunu tawkiidi saqiila bi ne bana ana muy fa'ilam alkaafira mooy mafoolam dañ ko na sab mandargaal na sabam fataay awaas sin la yuslima fi'lun mudaari' la muy nasabak an kuy nëbb ci gannaaw aw mandargaaw nasabam fata bi na bana huwa mu nekkee barabu rafa di fane la loolu mooy benn ak la alzimannaka giñ naa ne dana ma tëqoog yow aw taqdiya nii jëm ba nga fay ma xaqi sama fi ba ma joree li ma amee li ma amee du ma la bare gis nga tey ki la amee téeméer fay gi téeméer ni mu mën a amee yëkkati téeméer jox la ci saa si noonu la mën a amee ci nii jox na la fukk ñu ne badu wàññeeku na def na jëm ñeent fukk mu joxaat la ñaar fukk ñu ne badu wàññeeku waat na dina jëm ñaar fukk mu joxaat la fanweer ñu ne badu wàññeeku waat na def na ñeent fukk su la joxaatee ñeent fukk téeméer bi àggu kon taqdiye nii xaq yi mën dumaatan waahida mm-hmm. waaye mën naa bañ a xam dumaatan waahida mm-hmm. kon aw gi ànd ak moom mu ngi amee maanaam illaa benangam mm-hmm. loolu moo tax ba taqdiye kon na an mu ñaa ci gannaaw aw loolu mel ni lay jàngal laam gi tàmbalee nañ ko jawaabi gi lu ñu fi asafee alsima fi'lun mudaari' la ñu binaa ko ci fataa mu nekkee bala bu ngir jokkoo gim jokkoo noonu tawkiid saqiila bi na mën a ana muy faayelam alkaaf mooy mafoolam di binaa fata mu nekkee bala mu nafal jumla al asiman naka moo am arab di jawaab bi liñ fi asafe awaas asin la taqdiya fi'lun mudaari'an la muy nasabal muy nasabal an buñ na bu ci gannaaw aw mandargaam nasabam fata gi na mën a anta muy faayelam noon gi noonul wiqaayati la yaa damir mutakallim la ni binaa ko ci sukkoon mu nekkee barabu nasab dama moolam taqdiya mu jag dama moolam taqdiya mu jag bag day am ñaari ma mool xaqi mooy ma moolam taqdiya mu ñaareel dañ koy nasab mandargaam nasabam fataa gi nattale ci musi baat bi xaqa la waroon a doon yi fataa xaw lu ko tee feeñ soxla wu bi mask gu askanam toog yawul mutakallim da ngaa war a indi yaa pour ñu xam ne yow mi wax yaa moom xàq ji yaa googu te yaa kasara rek la mën a ànd ak loolu moo tax mënoo fataa xaw gi xam nga loolu wax de da ngaa bëgg baat bi ànd ak yaa te yaa rek la mën a ànd ak loolu moo la teree fataa xaw koy nasar مانرغان نصب فتا جين نقل چمج لوگو ترے سین سوالہ برابر ماسک گواس کنان تو یاول متکل دیگ منصوب بالفضات المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لأي المتكلم في مضاف عليها ضمير متكلم لك ابنك جسوكون هناك يا برافو gis nga bu baax a baax gis nga an ci gannaaw juróom benn yëpp lañ koy nëbbu ñett yi ay arafi jar lañ mooy laamu kay ak laamu juhuudi ak hatta seen liggéey la ñett yi ay xaraf watif lañ muy faa xaraf watif la waaw xaraf watif la aw xaraf watif la baat yi boo mu daare ànd ak ñoom ñu nasab ko xamal ne duur ñoom ñooy na sax waaye leneen moo làq si leen gannaaw dina sax da wax na la seen liggéey buy laamu kay laamul jiwu di hatta ay arafi jar lañ bu fekkente ne hatta bu fekkee ne waaw la wala faa wala ay arafi lañ eh, kon ñu jàng lool ba beneen yoon incha allah